Sénélec di kër gi nga xamante ni moom mooy jox courant askanu Sénégal mi ngi dund ay jafe-jafe yu métti euh, fi mu nekk nii rek am na ay société wala boog ay institution yi nekk fii ci biir réew mi di ay bànkaasu gouvernement bi yore leen ay milliards yi milliards te fay ñu leen ko ba tey moonte sax waa Sénélec ci kàddu kii di secrétaire général syndicat unique des travailleurs de l' électricité di Habib ay ñee na fi mu nekk nii seen i charge fi mu nekk nii mënatuñ ko boot rawatina yenn banques yi leen doon lebal xaalis lebalatuñ leen na tous moonte sax jot nañ leen a jox ay lettres de mise en demeure maanaam lettres yoo xamante ni boo moytul rek ñoom dee nekk ci ay gàllankoor ndaxte banque yooyu ñoom waa Sénélec dañ leen yoreel xaalis rawatina ay producteurs indépendants yi nga xam ñoo leen di jox ci wàllu pay énergie lu toll ci 74 pour cent ñooñu tamit boo moytul dootuñu leen fournir li nga xam ni moom mooy énergie moo tax ba daal ñoom waa Senelec nee nañu boo moytul réew mi dana ñuul kukk maanaam xuy kamaj ji dana fi bari lool. ñoom sax waa Sénélec fi mu nekk nii pour ñu fay seen yenn ci ay koppar wala bokk ay banque wala ñu yoreel xaalis nekk na lu méttee métti métti actuellement moo tax jamono ji ñuy ràññee ne réew mi mi ngi am ay xuy kamaj yu bare bare bare ci weeru tàngoor bii ñu nekk euh, fi mu nekk nii sax list bi nee na ñu am na ay ñi nga xam ni ay sociétés yu mag entreprise yu nekk fii ci biir réew mi rawatina tamit ay bànqaas yu bokk ci nguurub Sénégal yoreel nañu Sénélec ay milliards et milliards ci cadre secrétaire général bu Sénélec bi jot na liim yenn ci ay agence bokk na ci APIX Ageroute ANRAC Cour des comptes ñoom ñëpp ñi ngi yoreel waa Sénélec lu toll si ñaari milliards ak lu tegal rawatina yenn entreprise yi nga xamante ni moom mooy ONAS Sonacos Ofor SAED waa Grand Théâtre ASECNA ak ISRA ñoom it yoreel nañu Sénélec ñaari milliards ak lu tegal bokk na ci ay établissement public autonomie financière bi nga xam ni moom lañ ko tuddee boobule bànqaas di EPAF rawatina ay hôpital université assemblée nationale ak i tamit euh, yenn ci ay bànqaas moonte ñi ma jot liim yoreel nañu Senelec lu toll ci cinq milliards ak lu tegal ñoom facture yooyu nga xamante ni saf na loolu euh, ci ñi nga xam ni moom mooy waa euh, seen o Sonatel RTS port bu Dakar ñoom ñëpp ñi ngi yoreel Senelec lu toll ci quatorze virgule 4 milliards maanaam 17 virgule 4 milliards fukk ak juróom-ñaari milliards ak lu tegal lañ yoreel waa Sénélec rawatina tamit ñi may lim di collectivité territoriale ñoom it yoreel nañu ñii di waa Sénélec lu toll ci 16 milliards fukk ak juróom-benn ci ay milliards yooyu yëpp di ay bànqaas yu bootu ci gouvernement bu Sénégal moonte tax ay industrie maanaam ay entreprises yu nekk fii ci biir réew mi ñoom it booy xool bu ñuy lim. toll na si ñaar fukk ak ñetti milliards lu tegal lu ñu yoreel waa Sénélec kon loolu yëpp di yenn ci ay kër yoo xam ne ñoom itamit fay ñu seen i courant ak itamit ci wàllu fraude loolu yëpp moo indi ay jafe-jafe ci waa Sénélec monte daal lu ñu mën a wax rek mooy koppar yooyu nga xam ne bëri na lool ak itamit ay bànqaas yi bootu ci gouvernement bu Sénégal yenn ci ay entreprise naka la ñu mën a yoreel ñii di waa Sénélec bokk ci biir réew mi ay milliards et te fay ñu ko loolu nekk kaw téef kon boog lii lu mat xoolaat la